الاسم الفسوق بعض الإيمان ومن لم يكن فأولئك هم الظالمون صدق tax noonu lislaam yi jigéen rek lañ am soxla yal na yàlla defar jigéen ñi ñu woo imam Savage mu def du'aul iftitah alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahmani ar-rahim bismillahi walajna wa bismillahi kharajna بسم الله الذي لا يدور مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله تحميد وتعليل وتعظيم الرحمن الرحيم الرحمن علام القرآن خلاق الإنسان علامه البيان مالك يوم الدين ذلك يوم الجزاء إياك نعبد ولا نعبد إلهياه يا مستعان اهدنا الصراط المستقيم الذي له وجاج فيه وهو الإسلام صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأسنى أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لك الحمد وحمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما ولك أشبهنا ولك أمسينا ولك ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والإذن بالصالحين اللهم ربنا تقبل منا وأفينا وأفعنا وعلى طاعتك وشكرك أينا وعلى غيرك لا تكلنا وإلى الإيمان والإسلام كمل جمال توفنا وأنت رضينا يا رب العالمين ببرك سبحان ربك رب العزة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 ndax alhamdulilah ci suma càmmoñ nii ñi nga xam ne ñoo sos jàngale ci réew mi mu ngi nii toog li may wax su dee du dëgg moom xam na su dee dëgg la xam na lii mu gis jég jànq bu doy nii bokk ci ñi doon jiite alxuraan jiitu wante ci alxuraan te jëloon foos ñu jox ko mu jàng fi alxuraan ju neex ji wax dëgg yàlla ku ci xam dara ku ci xamul dara yépp xam nga ne yokkute la ku ko sos ak ku koy yokk ñii ñoo ko sos ñoo koy doxal ñoo ko yokk ba léegi moo tax ñu war nañ leen di leen ñaanal yàlla may leen wérgu yaram xëcc mm. seen fan ba ca kanam euh, gannaaw loolu xam naa Ousmane moom may ngeree ne maa ngi ko dig soxna loolu tax waxut ma ne waxal ñaari minute dañuy gërëmante rek moo tax ba xajjaama yi su xewlee comme ni mu ko waxee dina doy waar lool pour fooy dooreek fooy yem waaye dinañ njëkk a gërëm suñ ñaari jigéen ñii nga xam ne wax dëgg yàlla seen jataay ci seen kanam rek doy na pour ngeen xam ñooy ñan ak lu ñuy wax si ak lu ñu koy waxee si mu doon lislaam ñu xam leen comme ni ko Ousmane waxee euh, at mu nekk ñu ñëw fi bëggal ñu wax ñu diine wax ñu njub delluwaat ñuy déggante ci jàmm ba at mi dellu siwaat ñu ñëwaat bon ñu ngi leen di tatagal ñu ngi leen di sargal di leen wax bismillah xajaamay euh, mi nga xam ne moo woote nag ñu wax ne turi Adja May ci jamono ñu tollu nii rek wax la kuy Adja May turam rek doy na ndax bu taxawee nga xool ko gis lislaam ci moom rawatina jigéen ñi loolu jàngale gu may di jàngale la ci jëfam wuute nag li nga xam ne ci la def li ëpp ci dundam mooy jàngale di waar nit ñi boo ubbee rajo yaa ngi dégg may mu ngi waare boo ubbee télévision yaa ngi dégg may mu ngi waare ci conférence yi may mu ngi waare taxawal itam bunti xam-xam ngir yar xale yi loolu yëpp lim ko tëjee wala li muy dundee muy jàngal moroomi jigéenam ñi jigéeni lislaam nu mu war bon may royuwaay la ci wàll gu nekk fii nga xam ne mooy jàngeekaay bi Ousmane doon wax léegi ñu ubbi ko jàngeekaay bu am solo la nga dem taxaw fa dangay laajte ban borom xam ban boroom xaalis mooy liggéey fii lii mu def loola ñu bari yëguñ ko ci ñun ñu bari sax mu naam mba léegi xamuñ sax place boobu fu mu nekk kon loolu yëpp mu ngi ko def ngir yàlla te mu ngi koy def ngir liggéeyal lislaam mu doon ku ràññeeku itam ci ñii nga xam ne ñoo ma wax loolu di Supreme Islamic Council su ngeen bàyyee xel euh, ndaje mi mu sos nii bu magut Supreme Islamic Council it li ko Supreme Islamic Council magee bariwut bon may Supreme Islamic Council taxut ko di liggéey waaye liggéeyam bu ràññeeku moo ko boole sax ci kilifay Supreme Islamic Council mu doon fa koo xam ne ku ràññeeku la ci liggéeyam bu aju ci teg nit ñi ci diine ca wàll gañ ko féetale ca liggéey mu doon ca ku ràññeeku ku ca farlu koo xam ne moo tax jaral na ñaari président Supreme Islamic Council yëpp ñu nekk fi ñaari secrétaire général Supreme Islamic Council yëpp nekk fi waaye kilifay Supreme Islamic Council yëpp bàyyi seen soxla ñëw fi ndax gis naa fi ñeneen Supreme Islamic Council alaaji Moustapha Seen a nga ne la ci biir ak ñeneen ñi nga xam ne ay élément leneen ñëpp ñëw nañ li la fi ici mooy liggéey may bu ràññeeku ci council bi bon council bi mu ngi kontaan ci may di ñaax jigéen ñi tam ne am nañ sample nañ seet ci xajja may council bi kontaan na ci may mu ngi ñaax jigéen ñi di wax ne nañ seet ci aja may jaar ci yoonam di ko déglu di xool ci roy ndax loolu mooy li nga xam ne mooy jëriñ jigéen ñi ku xër ci mbirum jigéen ñi itam la jigéen ñi jub foofu tëjee ñi bari ñi nga xam ne dem nañ màkka wala ñi demul màkka sax xam nañ taxawaay xajja may ci dimbale ñi nga xam ne ñooy dem màkka loolu may ku ci ràññeeku la ci ñi nga xam ne ñooy yóbbu nit ñi màkka bu demee màkka mook jigéen ñi la bu ñuy dugg wata yi mook jigéen ñi la bu ñuy wàcc mook jigéen ñi la fa ñuy tëdd ca tante mook jigéen ñi la bu ñuy dem jigéen ñiy dem ca wana wanañ fay def moom ñoom la nga dégg bàyyi lii defal lii waxtu ne buñ ko fii tey mun nañoo conférence rek ci màkk rek ñetti fan yi mi naan rek mun nañu cee wax ya fay xew ba jant bi soo te du jeex may nekk fa di liggéey kon kuy tam ci màkk gi ah, ku ca sawar la ku ca takku la ku ca liggéey la ci yàlla rek moom la cay def seen tuwut ci woon tur xëj na sax buggu nit ñu wax ko waaye ku def lu baax foog itam loolu ñu wax ko bon kansul bi mu ngay am kontaante ci xajamay di sa ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu xëcc fanam may mu gën mën a liggéey mu mu dem ci kanam di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin euh, kon léegi ni xajja Maymuna Savage moom itam mu dalal ay ganam soxna xajja Maymuna Savage juróom yi nga xamante ne moom la Islamic Cultural Center for Women and alhamdulilah fukki ak juróom la sax waaye ñaar dañ amoon islamic culture conference for Arab bi ñëw Atlantic Hotel loolu ci biir kon dafa mel ni ki this year 25 years of suñu annual islamic conference la kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah gannaaw bu ma sante yàlla maa ngi ñaanal suma ñaari alhaji Muhammad Yadali Sabi ñaanal yal na ma ko yàlla fayal yéen ndax ku am téereen bu la dimbale mun ngaa dem assuré mooy wax papa joo xam ne forcé ñu jàng macha allah alhamdulilah lu tuuti li ñu xam moo ñu ko xamal waaye lu tuuti li ñoo liggéey it moo ma dimbale si am amal keroog bi ma toogee nekk si islamic cultural bu fukki at dañ daan woy jigéen ñu daan gis ci télé bi ñuy sika di woy di def Kenya, Kenya, Kenya.